asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bi ñu bokkee musu ci seytaane ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa di julli di salmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru bu barkeel bi nga xam ne mooy weeru chaban tey ji tombe ak fukki fan ak juróom ci weeru chaban nga xam ne sunu ko déggee xel yi dina dem ci weeru koor waaye fa tabarakallahu am na mag mu baax bokk ci mag ñi nga xam ne réew mi xam nañu ko muy maam Thierno Ibrahima Fati di rakk ci cheikhul Khadim nga xam ne màggal gi mooy màggalu Daaru Moxti tey nag ñu ko fa yéene defee fii ci Gueule Tapée ñu toog ak sunu baay sunu nijaay jëwriñ Baye Abdoulaye Sow doon ko laaj kan mooy Thierno Ibrahima faati ak tamit doomam ji nga xam ne. kenn du tudd Gueule Tapée te tudd Seydina Ousmane Mbacké moom mi nga xam ne mooy wéjur Cheikh Ahmadou Karam Mbacké alxadimiya Baye Ablaye kan mooy maam Thierno a Fati. aouzu billahi samii alim mina sheytaani rajim bismillahi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala euh, di ziar di baal euh, bi di nisu Chahban euh, dafa yemoog mooy seet ci bés ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyee jublu baytul maxdis commencé jublu kaaba ga loolu sunna la lu fi yonent bi bàyyi waaye li waral ñu naan màggalub daaru Serigne Touba Cheikh naan Ahmadul Khadim bi mu demee ci liggéeyam ba eh, rakkam jii di maam Thierno nga may laaj ni moom la dénkoon ginnaawam ba mu demee ba ñëw nag bés ni tey la ñu daje ñoom ñaar mu mel ni ki koy laaj li ma la dénkoon noo ko téye ak it di ko wax fa mu demoon la mu fa jëlee maam Thierno Ibrahima Faty nag mooy rakki Serigne Touba moom mooy juróom soxna Faty Issa Diop la waa Kokki la maam Thierno nag mu ngi feeñ ci 1862 ci njaa ci jamonoy dooru euh, Poroxaan ci Njaabakunda fa la maam Thierno feeñee maam Thierno nag ba mu feeñee daanaka dafa feeñ rek Serigne Touba jël ko ndax am na sax ñuy wax ne ba muy gone la daan ñëw. jël ko soxna Faati Isa ànd moom dugg ci àll poroxaan bi ba bu yàgg mu indiwaat jox ko ndeyam te boobu daanaka maam Thierno mu ngi tollu ci eh, li ñu saayit lu ñu mën a wax ne gone la boobu sax joxaguñ ko tur mu daan wax ne nag eh, laata maam Thierno feeñ way juruma eh, sëñ Mamoor Anta Sali daf ko daan Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko li nga soxla ci yàlla soxna Faati mii lii ci moom bu ñëwee di góor xamal ne li nga bëgg di ko far mu ñëw di góor di maam Thierno Ibrahima Mbacke sëñ Tuubaa nag moo jàngal maam moo ko jàngal ci loxoy boppam moo ko jàngal ci lépp daal boobu yoonu mu di taxawagul sëñ Tuubaa da daan def fu muy jog da daan Ibrahima mu ne ko Mbacke mu ne ko jógal ñu ànd ba sax miinoon nañu ci jamono jooju bu ñu ñuy seene sëñ Tuubaa dañu nan sëñ Tuubaa da jaar na fi ànd ak surgaam bi ndax boobu topp na ko toppin woo xam ne eh, jafe na ku koy nangu la noonu magam ba day naa wax na sëñ Tuubaa de jaar na fi ànd ak surgaam ba euh, bi yoonu mu di taxawee nag sëñ Tuubaa lépp mu jox ko maam Cerno moo ko jàngal moo tax ñu naan sëñ moo ko jàngal moo tàmbali ci moom moo yeggali ci moom xam-xam lépp sëñ Tuubaa moo ko jàngal maam Cerno kon ci njëlbeen daal kooku mooy maam Cerno Ibra Faati dëkk bii mu dëkk nag sëriñ Tuubaa moo ko ci jox ndigal ndax 1912 euh, la ko sëñ Tuubaa wax na ko am nga ndigalu sanc dëkk Cerno boobu maam Thierno mu nga Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor la gonte Serigne Touba jox ko ndigal na ko Ibrahima mu na ko Mbacke mu ne ko jógal nga jublu penku nga war fas te nga ubbi sa kaamil tàmbali maanaam foo jeexale kaamil wàccal nga xatnu foofu sab dëkk mooy daaru maxti gi noonu loolu mooy daaru maxti gi maam Thierno jogul rek sanc daaru déedéet Serigne Touba na ko jógal nga war fas ndigal sunu borom nee na nga war fas ta jublu penku te nga tàmbali kaamil fu kaamil bi jeexee wàcceel te xat nu ko foofu sa dëkk bi mu wàccee toog mu fekk ay pël ñoo fa dëkkoon mooy leen fii mooy fan ñu ne ko fii mooy toogi njak mu ne toogi njak maa mu ne kon mooy ku fi toog jak gis ni tey ku fi toog jak maam Thierno nag ba muy sanc dëkk ba am na ay mag ñu mu àndoon jàpp ma nag waaye dafa mel ni juróom-ñaari mag la àndoon baatu laa ilaaha illallah sañ sanc dëkk ba ndax dafa wax na kenn ku si nekk na nga def junni laa ilaaha illallaah ñu soog a toog loolu la sanc daaru moxti gi tudde ko daarul moxti am na ñu naan daaru musti déedéet déedéet daarul moxti këru xéewal gi waaw ci ndigalu Sëriñ Tuubaa daal la sanc dëkkam bii di daarul moxti toog fa nag toogin woo xam ne sanc ay tool yoo xam ne euh, cinq kilomètres de daaru moom la ñuy wax cinkóoli lañ ko daan wooye maam la ko daan wooye fa la daan béyee diiruk sëñ Tuubaa euh, nekkoon ci àll bi nekkoon ci natt bi maam Thierno moo amul ndigalu dindal dundal doomi Serigne Touba ndax di tàmbale ci sëñ Modou musa sëñ Fallou ak ñi nga xam ne feeñoon nañu laata sëñ Touba di dem ñoom ñëpp maam Thierno moo leen jàngal moo tax sëñ Fallou daa wax na suñu bàyyi Thierno jàngal nañu bañ ne ar yar nañu it bañ ne nur waaw parce que boobu sëñ Touba def na ci moom lool euh, mën na yor njaboot gi. naan mën naa wax ne sëñ Tuubaa dafa summeekoon ci borom daaru moo tax mu naan Cerno mooy sama përëgub ndeyjoor nit ki përëgub ndeyjooram mooy jëmm mooy léppam ndax nit ki ndeyjooram mooy moom waaw sunnaam yëpp ci ndeyjooram lay tàmbalee lu muy def ci ci lu baax ci ndeyjooram dafa wax ne maam Cerno mooy sama përëgub ndeyjoor kon ci gàttal daal loolu li leen mën a wax Serigne Ousmane nag eh, mbaaxam ndeyam ak ku liggéeyal maam ndax maam ma Sey ku ñu wax soxna Ramata Mbay mooy ndeyam soxna Ramata Mbay ku ñuy wax Faati Diop moo ko jur soxna Faati Diop moomu moo yaroon maam Marema maam Marema tuddul woon Marema mbéri la tuddoon mbéri Sey la tuddoon waaw boobu nag woy juróomu góor di Cheikh Sey mu goon kër maam Cheikh Ibra Fall tarbiya léegi bi maamam jooju gaañoo di Faati jóob ñu jël ko yóbbu ko ca soxna Penda Ndiaye Diop mu nekkoon ci kër maam Cheikh Ibra ndax soxna Penda Ndiaye maam Cheikh Ibra da ko wóolu woon ko daan wooye pendal mu gën tubéy daan ko jox nag ñu bari ngir mu di leen yar maam Marème nag maam eh, soxna Penda Ndiaye Diop moomu mooy yëggale yaram ak tarbiyam ci kër maam Cheikh Ibra bi bi mu tolloo nag ci dugg kër eh, mu gis ñu bari amoon yitte ci moom ci la ko jëlee jox ko Serigne tubaa moom maam Cheikh Ibra Serigne Touba tegandi ko ndax boobu nee na amagul ndigal ci kan lañ ko war a jox maam Marème na jot na nekk njaareem ci kër gu mag ci mag ña am na ak tarbiya gu mu fa jot a def ak mag ñi nga xam ne eh, ku tedd ki moo leen yoroon eh, ba mu fa jógee nag maam Salif jëlaat ko fa yóbbu ko Daaru Xafoor kër maam Salif boole ko taaw maam Salif Fall mu ñu ko soxna bu sofaan Daaru Xafoor googu nag la maam Marème gonte bi ndigal li jógee Serigne Touba dem ci Cheikh Ibra mu ne ko ndigal li mooy nañ ko jox na mbir mi cëru Cerno la ca maam Cerno ca maam Seex Ibra wa daf ko mariamu waaye maam Cerno moom biral moo dëggal tur wa daal ba mu ñëwee nag ndax maam mu ngi tàbbee ci loxoy maam na ca Mbàkke Kajoor sëñ Ousmane mi Mbàkke Kajoor la gane àdduna boobu maam Cerno sancagul daaru maam Marema Sey moom mu wax ne ma Ousmane de Mbàkke Kajoor gii la feeñe bi mu feeñe sëñ Baara mu sëñ Tubaa moo ko jëkk gis ci ku sant Mbàkke mu daan nee na fekk boobu moom mu ngi ci wane di defar yaram mu ne kooku ndax boobu Mbàkke jor àll la mu ne ko man la man la mut lamin mu ne ko looy def foofu mu ne ko gan gi laay xool indi nga fi ku yéeme loolu maam Marème moo ko nett Sëriñ Ousmane nag daal di gimmi moom it maam Thierno ko tàmbalee nee na mam baay na bàyyam sama bàyyi moo ma tàmbaleel njàng nee na li ëpp it sama njàng ci sama baay la ba mu matalee ci man sa la may soog a bàyyi ma jàngaani. moom buñ ko dee gën natal ñaata at la dund ak way juróom kon maam Thierno moom Seydina Ousmane. sëñ Ousmane euh, maam sëñ Ousmane mu ngi feeñ 1911 maam Thierno mu ngi génn mu ngi génn àdduna 1943 kon mën nañu wax ay 30 ans yooyu daal ay 32 ans wala yu demee noonu daal waaw mais moom nag li ëpp ci arxuraanam ci maam Thierno la waaye bi mu tolloo it ci ñu ñu seetantal arxuraanam ak di ko wàccee maam Thierno da ko yabal ci Serigne Touba da ko yónni foofu mu mu mu dem sëñ bi seet seetantal arxuraanam moom doon na wax na moom suñu sax daan wax na man de ca mag ña laa li fa mag ña jàngee laa jànge ndax Thierno ma tàmbali Serigne Touba ma mottali daana wax loolu moom Serigne Ousmane. te lu mu wax lu nekk rek eh, bàyyi na ci xel yàlla ndax ku ragaloon yàlla la. léegi ñun ñuy gis Seydina Ousmane maanaam moom ci dayo bi nga xam ne daf ko am fii ci Gueule Tapée ak Ndakaaru lan moo ko waral moom Seydina Ousmane dayo bi mu am Gueule Tapée ak Ndakaaru. waaw sëñ Ousmane ñëw Ndakaaru fii ci Gueule Tapée ci kër Maam Birane Niane. Maam Birane Niane mooy woy ju bàyyi eh, bàyyi lu ñaan Maam Birane Niane nag ci magu murit eh, fii la. Eh, li tax mu fa daan daal Massar sëñ Massar Wade moo ma ko nettali ndax dama defoon ne ndax ñun ci moom la ñuy xamee sëñ Ousmane sëñ Massar mu ne ñu déedéet sëñ Modou kan benn taalibu sëriñ Ousmane bu ñaan jaayee Sandaga moo léye woon kër maam Birane Niane léegi nag sëñ Ousmane bu jógaan eh, daaru day ànd ak bàyyi ak Cheikh Sidi Makhtar mi fi nekkoon xalifa sëriñ Touba ndax Cheikh Sidi Makhtar wooy jëróom sëñ Baara moo ko joxoon sëñ Ousmane ne ko Ousmane jëlal seet mi mu mottali sama wala rek moo tax fu Cheikh Sidi Makhtar sëñ Ousmane daan dem ñu ñëw di dal fii fii ci golta bi ci kër ma euh, maam Birane euh, wax na ne it nag li ko génn kër ma Birane Niane dafa mës a daje ak Serigne Fallou euh, sëñ Modou Kane daanu ko ah Mbacke tey de kër gi neex na lool mu ne ah kër gi daa mës a neex mu ne ko dee dafa yokk mu ne ko ah mu fi nekk nee na mu jóg ànd ak sëñ Modou Kane ñu dem siyaari sëñ fal ba ñu siyaare ba dellu at ci biir néeg bi mu ne ko Moodu mu ne ko Mbacké mu ne ko ñàkk nga gande mu ne ko ah mu ne ko Thierno mësta fanaan ak sëñ ci génn kër kon du ma fanaan ak doom Tuubaa ko jëlee ci kër maam Biram Ñang mooy sëñ Fallu gan gi mu fa gane si te moom mu ne comme moom day way day roy way juram maam Thierno Ibra Faati te mësta nangu fanaan ak Cheikhul ci benn kër kon moom loolu du ko nangu ak sëriñ Fallu. moom doomi na du fanaan ak doomi sëñ Tuubaa ci génn kër gàddaay génn te boobu miinakul kenn Ndakaaru muy dox di dox di dox ba ñaay cokkeer nee na ca la fa gisee benn xeetu mooy yàlla gu doy waar nee na foofu nag la taxaw daa na seex mu ne ko Mbàkke isma mu na ko nakaaru gii de ku leen dimbalewul musiba am dinaan dinaa ñaan Serigne Touba ak Sambaay Cerno ñu yebal ma ndakaaru ngir ma dimbali waa ndakaaru looloo ko indi ndakaaru ndakaaru it nag Euh, Jibril Fall bi nekkoon RTS ca taalibeem yi mag yi nekkoon Dakar waaw mhm. ba mu bàyyee foofu nag kër euh, maam Birane Niane mhm. ci la sëñ Fall euh, ci la maam sëñ Massar Wade mi amoon néeg as néeg su ndaw nag mhm. bu ñu nosaan toog moog sëriñ Ousmane bu sëriñ Ousmane toogaan ci lal bi ci néeg bi bu taalalee tànkam day génn ndax néeg bi daa tuuti woon mu ne ko maas mu ne ko mbaak ndax maas rek la ko daan maas mu ne ko mbaak mu ne ko mbaa xeeboo néeg bi mu ne ko xeeb naa ko lool mbaak mu ne ko daara ju yaatu lay doon lu yaatu lay doon ndax ku yor lu tuuti xajal fi ñëpp di nga am lu yaatu ngir ñëpp xaj fa mooy këram gi tey ci këram gii nag bi mu amee kër gi sëñ Ousmane di tàmbaliwaat ñëw ci moom ci lañ ko xamee ñun mu daal di ñu wax nañu cerno moo ma maam cerno moo ma yebal ci yéen nee na mbooloo mii ngeen ko sos moo ko moom da ma fekk daaru ñu jëflante ñun xëy ñu suba rek jébal sëñ Ousmane daayira déedéet moo ñu wax ne mbooloo mi moom moo ko moom maam Thierno moo ko ne mbooloo ma ci Gueule Tapée yaa ko moom mu ne ñu neen ma fekk daaru mu fekk daaru googu it nag ci la ndimbal gu nekk teb bi borom baatin la woon nag boo xam ne ak naqaree waxtaane baatinam ndax euh, nit ku amul ngëm dëgg dëgg dëgg bu ñu waxee baatin sëñ Ousmane da koy weddi te foo natt baatin ba rek weesu na ko daanu wax ne yàlla de deseelu ma dara yàlla ci lu ma ko woo dina ma ci wuy ndax li sama diggante moom yëpp matal naa ko daan wax ne alxuraan nit kuy teg àlluwa sa lupp rek man Ousmane ñeme naa la daanu wax loolu daanu kuy teg àlluwa sa lupp rek man Ousmane ñeme naa la kon woolu woon na boppam ci diggante ak boromam waaye fii nag def na fi baatin boo xam ne ci man ak keneen ak keneen ak keneen ndax boobu goney Ndakaaru la fi fekk fi saayir su xaw a doy waar waaye du joxuñu gàllaaj addisuñu day ñuy wooñu di ko fekk daaru mu di xool di ñu bàyyiwaat ñu dem ba ñëpp bàyyi lépp saayir suñ daan def daana wax bàyyi soo ne ko nit ki bu bàyyee ndeyam bàyyi bàyyam ñëw ci yow yaakaar fi ndimbal doo ko xasta doo ko doo ko boddi da ngay moom ba ci ci ngor nga dindi ko ca la nga bëggul ci moom def ci moom la nga bëgg noonu la jëflanteeg ñun waaw. moom Seydina Ousmane kon digganteem ak Gueule Tapée ci Baye Massar Wade la soqi ci ñi miineel gi mais da bi muy dal kër Birane Niane daje fa ak Serigne Fallou Mbacké te dafa ne wéyjuram maam Thierno Ibrahima faati musul nangook fanaan ak Cheikhul Khadim ci genn kër kon moom bu ñëwaatee loolu dinañ ko tax kóllëre googu naka ngeen ko dundee yéen taalibe yi. waaw xam nga sëñ boo gisee dafa daan wax ne foo leen dégg sëñ Tuubaa dem leen fa ndax nag moom jikkoy sëñ yi sëñ Saliou daan def lay dem wax naan man Ousmane ndak laa damay nampal sama doom nampal doomu jàmbur foo leen dégg sëriñ Tuubaa rek dem leen fa bu xeebal kenn sëriñam ku yaataloon la nag ku yaataloon bari na ci kër gi tey ji ñoo xam ne bu ma la doon wàññal jébbalu ñu sëriñ Ousmane te ci fii lañu tarbiya ci kër gi ba ci Pape Diop mii fi doon président Sénat daay rek xasaayoo bi mu jógee Thiès angal sëñ Fallou ñoon la tarbiya ba lu bari ci ngëneel lu ko fi fekk fii la ko ko fekk waaye eh, dañu daan dem fépp màggal yëpp la daan dem na ci lépp la daan dem ndax moom noonu la doon dunde moom sëriñ su eh, baatinam daal bu ma la ko doon wax jii dafa doy waar am na sunu benn eh, wëllëre boo xam ne dafa jóge ndar ñëw daaru méttitu biir dab ko fa bu doy waar ndayam ja soxna Marème ñëw ne ko Ousmane mu ne ko Mbacke mu ne ko diw de nee nañ dafa tawat de ma egg ci lool mu ne ko ah mu ne ko waaw ah. mu ne ko te ba muy jógee seen kër de dara dal ko bu ñëwee fi feebar ba ñàkk fi bakkanam ak tuuma dina la topp de mu ne ko baax na dégg naa maam wàññeeku dellu keesam sëñ Ousmane jóg daf lu doy waar keroog moo tax maanaam mbiru baatinam day naqaree nettali daa di boot ay loxom dem ci cur yi ñu yeew fas ci ginnaaw daa boot loxo yi nii am fas mu jàkkaarloo ba mu yàgg ñu jékki-jékki fas yu daanu di weexu ba sedd guy guy guy guy mu ne gas leen ba mu xóot ngeen denc ko daa del dëpp nit ñi topp mu dem ci maam Sanday mu ne ku Mbàkke mu ne ko def naa la nga waxoon ne wecce naa ruugi ak ruug fas ni sëñ Ousmane def na ci benn ci yi mën a nettali rek te boobu mooy di gën a woyof ci baatinam mooy li gën a woyof ci baatinam daan nañu wax ne lu ma leen di mënuma ko dama leen di nax ndax Serigne Touba ak Thierno ak yàlla ak yonent yi wàccoon nañoo ko moom léegi ma lay laaj moom nag mu tabarakallahu yàlla def mu noppalu ji dem fekki wayjuram ba dem fekki ji Cheikhul Khadim ak tamit mbokkam yu tedd yooya muy Serigne Fallou Mbacké ak Serigne Mouhamadul Amin Bara nga xam ne fonkoon nañ loolu Seydina Ousmane léegi ci wàllu moom mu wiji boromam bàyyi leen ak doomam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Al Khadim ya naka ngeen dundee keroog bi ndono li ñëwee ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mu nekk xale yoon ndono li hmm, bés bu métti la ndax moom bi muy toog xalifa ak baayam eh, vingt-sept ans la te boobu it fekk na baayam ndax moom sëñ Modou Awa Balla lañ ko tuddee. Mhm. sëñ Modou Awa Balla. la mhm. ko sëñ Ousmane tuddee. te sëñ Modou Awa Balla doomu moo doon xalifa Maam Thierno. Mhm. sëñ Ousmane ci sëñ Modou Awa Balla la jébbalu. sëñ Modou Awa Balla moo doon wasila sëñ Ousmane. sëñ Ousmane tuddee ko taawam ba pare jox ko ko. daa di ne ko jox naa la Modou. diirug sëñ Modou Awa Balla nekk ci kaw suuf. sëñ Modou ñeemewuloon teg tànkam kër ga. sëñ Ousmane da ko jox ba pare mel ni ku ko génne. daan maam Marème daana ko waaw Modou ani ani euh, Ousmane ani Modou mu ne ko Modou de sànq moo ko de dama ko lax ndax euh, bu ma noppee ci moom du ko yokk du ko ñuy bu ma noppee ci moom ku mat sëkk lay doon daana waxit ne bu gars yi bokk taali bi ñoon daan sikar ba sikar si kër gi tàng lool daana wax ne ah ko dàq de waaye dama di mag rek mm-hmm. bu ma demee ba doonaat gone ba xaw a mel ni ku maase ak yéen bay takk ndomb ndaayaan gi di ngeen xam ne maa leen dàq sikar boobu mu ñuy jund Cheikh Ahmadou Kara mais ñu bari ci ñun xamuñu ko ndax boobu daanaka di muy ñëw ci kër ga du bari sëñ suman mosul nangu daane wax ma mare ma ne ko ñaari kuy duñu bokk mbalka Moodu waaw mu ne ko dama ko làq rek waaye bu jotee rek mu ñëw waaye bés bi mu toogee xalifa ak bàyyam la mat ak toogin ndax sëñ Ablaat ak sëñ Moodu Awa Balla ñoo nañu modu mii la ku yaakaaroon Ousmane sumaan nga topp Moodu ku yaakaaroon Ousmane na nga topp Moodu mu fekk kër baayam nag ay seng la woon sëñ Ousmane dana wax naan si fii ci àdduna bëgguma fi taax bas boo leen ma noppee gis ba ma ñibbi bayti ci Cerno boo leen may defar nga defaral ma sama barab boobu waaye fii ci àdduna ma fi taax waaye boo demee tey jii li nga xam ne Cheikh Ahmadou Kara toog na toogaayu baayam ndax defaraat na kër baayam yëpp kër ga ca daaru moo ko def nii mu mel kër ga ca Touba moo ko def nii mu mel defar na ñaari kër yooyu ba pare sooga ut këru boppam ca daaru kon euh, Cheikh Ahmadou Kara dafay sëyiñ Ousmane ndax mooy taawam ba pare mate ko liggéey fi nag liggéey boo xam ne addum yi yëpp gis nañ ko doomi sëñ Tuubaa yi mu jamonanteel yëpp gërëm nañ ko xam ko sëñ Abdoulaye dem ba ne la ku mënul dara ci jumaay sëñ Tuubaa ji du la mënal dara sëñ Saliou ne la bul ma tàggooti ci dara lépp loo tàmbale ci lu baax bul ma ci tàggu bul ma ci xaar am nga ci ndigal sëñ Chouaib bu li kaddu gay néew néew nee na ko Modou mu ne ko Mbacke mu ne ko yow de xaw ma ku la tegtal waaye yoon wii nga jaar de fa la mag ñi jaaroon lu lay tere yegg nag gisuma ko sëñ Abdou Khadre ne ko bu ñu demee fa sëñ Tuubaa maay doon sa seede sëñ Moutala ne ko taalibe gi de xamoon naa ko waaye maa ngi koy teg sama bët te mën naa ko seede soxna may ne ko jàppal ne maay sa ndey. kon doom sëñ Tuubaa yi mu jamonoon tël ñëpp jëflante ba am ngërëm ci ñoom kon kooku buñ ne moo fi xalifa ak Serigne matale na xalifa ndax liggéey na ko kon loolu moo doon ci gàttal luñ ci mën a dolli ngeen baal ñu wax wasalaam. yan kaddu ngay tàggoo Baye Ablaye. kaddu yi daal mooy yàlla na réew mi am jàmm yàlla na réew mi am jàmm yàlla na réew mi am jàmm Cheikh Ahmadou Kara ji mu am ci réew mi yàlla na ko yàlla kattanal ba mu matal ko. ndax nit la koo xam ne ci jàmm rek lay dox ndax te doon na fi uddiloon na fi euh, mbooloo mu tudde jàmm gën ay manko ci dëgg jàmm moo gën ay kon moom jàmm rek la bëgg leneen li nag mooy Gueule Tapée gii nga xam ne fi la ñu cosaanoo yàlla nañ fi yàlla defal lu yaato yaatu yaatu defal ñu jàmm defal ñu xéwal defal ñu gudd fan defal ñu sutura daayman ak taraanga adduna ak alax jox ñu wërsëgu yaatu wu ñu dundale suñu njaboot te lu ñu euh, njaboot gu ñu am rek ñun ñëpp yàlla na suñu njaboot tekki yàlla bu suñu njaboot yaaxu yow nag bàcc ñu ngi lay kalaameek sunu borom yàlla mi nga xam ne ku mu teg loxo sa dara dootul yàqu yàlla yàlla yokk la yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla taxaw la yàlla lay seenu te kenn bañ laa geesu jox la wërsëg wu yaatu nag risxan tayyiban sutura daayiman ak taw tawfeex ak taysiir ak naja télé bi it xaw ma ko amoon waaye yàlla na yokk yàlla na yokk yàlla nañ ko dégg fi tey ñu dégg télé yu mag yëpp ngeen baal ñaax wasalaamualeykum wa rahmatullah kii Ablaye Sow la taalibe Serigne Ousmane di jaamu taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi mu ngi noonu loolu lañ jëlee tey ci jëwriñ Baye Abdoulaye saw mu jëlee ko ci no Ibra Fati wàcc ak ñun ci Mamare ma sey wàcc ñun ci Cheikhul Khadim waaye wàcc ñun ci Seydina Ousmane Mbacké Noreyni waaye wàcc ak ñun it ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Al Khadim mi nga xam ne tey mooy xalifa borom Daaru Muxti di maam sey Seydina Ousmane Mbacké ni kon dégg ngeen ko kon diggante Gueule Tapée ak borom daaru diggante bu yàgg la ci kër mam biram ñaan fii ci gël tappe wàcc ci kër sunu baay alxaaji mas mas masar wadd ak mbokki taalibe yi dégg ngeen ni ko baay Ablaye jukkee topp leen seen télévision DK TV people ñu ngi dokkeel ñëpp ci màggalu daaru gi di ñaan yàlla mi dara tawul yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla dolli fi sutura Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di xalifa Seydina Ousmane Mbacké yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te yàlla dolli ko jàmm Serigne Bassirou Anta Niang mi xalifa maam Thierno Ibrahima Fatit la yàlla gën ko taxaw yàlla dëgëral ko ba yéeg ci Serigne Mountakha Mbacké Bachirou ak mbooleem këru diine yi ko seqal yëpp jaar ci ziar si ñoom ñëpp waaye jaar ci ziar ci Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem kilifa diina yëpp di leen ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla sutura di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def dal yàlla na fi yàlla upp ngelawal jàmm wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu